jaajëfal nañ leen mbokk leeral SN di am mbégte di ànd ak yéen su nekk suñu ay programme ngir tënkal leen xibaar yeeg li jot a fës ci bésub talaata yemoo ko fukki fan ak ñeent ci weeru mai ci atum 2024 dañu koy dal di doore ak lu ñeel décret bi nga xamante ne nii le président de la république Macky Sall jot na ko fee daal di tënk ñuy teggi tànkam président la république Macky Sall nag dogal boobu nga xam ne jëloon na ko jëmale ko ci ancien ministre yi li ko dale ci nguuruk sengoor ba ci magistère am ñu di leen gal salaire bu tollu ci 1,5 wala 2,8 millions yoham xamante ne ni fas yéene nañ leen kaa daal ci le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye Daldine dinay annulé bobu lepp décret mu nek xibar bu yes bo xam ne daal koy xamle ne ki di Bassirou Diomaye Faye lepp lo rek président Macky Sall laloon na ko daal dina japonais ndax dañu di président Macky Sall ndax dafa bëgg a suuxal nguur gi ay ndëgg sërëx la ñu teg ana lan moo tax mu toog ci nguur gi fukki at ak ñaar deful lu ni mel bàyyi bay waaje dem daal di soog a signé bi lépp décret bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi nga xam ne ñoom ñoo di waa Seneweb bu ñu jugee ci mbirum Bassirou Diomaye fay dañuy àddu wax ci leneen mu di lu ñeel premier ministre bi di président Ousmane Sonko ni ki démb ci altine ji la daal di génne ab arrêté moom itam portant création d'une commission ad hoc chargée euh, du contrôle de vérification des titres et occupations euh, ci lu jëm ci wàllum ancienne nouvelle et dépendance bu domaine public maritime ñu gën ko xam ci euh, DPN DPM ci région bu Ndakaaru Ousmane Sonko yemul foofu euh, dal dinay euh, également suspendre lépp loo xam ne moom moo jëm ci wàllum construction ak beneen liggéey boo xam ne rek daal dinay ñeel ancienne dépend indépendance eh, bu DPM ci biir Ndakaaru ci ab délai boo xam ne dafay toll ci ñaari weer à compter niki démb ci fukki fan ak eh, ñett ci weeru mai atum 2024 mu mel ni fi ne nguur gu yees gi daal dinañu taxawal nag lépp loo xam ne jotoon na fi am ci nguuru président Macky Sall lu ñuy càmbar la bu jaree ñu màbbal ko ñu màbbal ko wala ñu suspendre ay décret ngir rek jéem a ci wan anam la ñuy daal di ñongalewaat réew mi ci bépp boor ngir ku nekk mën caa gis boppam waaye yenn ci ay mbir yoo xam ne jàpp nañ ne ay njuuj njaaj la yu amoon ci biir yoon mën kaa leeral ba mu leer ñu daal di àddu wax ci leneen Amadou Ba mi fi nekkoon candidat bu benn Benno Bokk Yaakaar wala sax APR moom Amadou Ba nag dafa génnoon Sénégal niki démb lañ ko daal di teertu ancien premier ministre bi dañ ko daal di accueillir accueillir bu chaleureux ay partisans am nag ñoo daal di def lu ni ngir li nga xam ne ni moom moo di élection yi weesu ku ne xam ne ni Amadou Ba kile di Bassirou Diomaye Faye daf ko daal di gagné ca premier tour ya ñu jàpp ne kile di Amadou mérito woon na toog ci fauteuil président bi waaye bu yàlla dogalee lu yi euh, tax ñu bàyyi ko benn yoon seen mëbët wala sax seen yéene moo di ànd ak moom euh, ba fu mu jëm tax ñu daal di koy teertu ci aéroport international Blaise Diagne di ko tagg ak di ko woy euh, Amadou baax noonu lañu la nammee papa moon nañu lax lool moo nekk kàddu yi nga xam ne doon nañ ko yëkkati ngir rek daal di xamal ki leen di Amadou baax ne ko même bu fekkee gañewul rek seen xel seen xalaat seen bëgg-bëgg wala sax seen xol mu ngi ci moom waaye bëgguñu benn yoon mu wàcc ay loxoom itam li ñu bëgg moom moo di mu ànd ak ñoom ñu liggéey ba lu leen yàlla may ñu jël ba fileeg présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal fileeg juróomi at. ñu àddu wax ci beneen actualité mu di lu ñeel dossier judiciaire bi nga xam ne moom moo doxoon diggante Bril Fight Fo ñu gën ko xam ci Jibril Mbaye fal ak Bouba Ndour bu groupe Futur Média démb ca tribunal bu Ndakaaru la ko fa yéene woon acté mujjee nañu ko daal di renvoyé ba le premier juillet 2024 ca euh, di porter plainte ki nga xam ne moom moo di euh, Bouba Ndour bokk na ci euh, woy boo xam ne woyoon na ko moom ak euh, Pape Birahim sama sa bëgg-bëgg dans une série bu nga xamante ne ni ca la ñu jël boobu lépp woy dugal ko ca woy boobu nag ñu ngi ko daal di dippee woon série bii di Taïfin taxoon ñu dugal ca woy boobu nag biril jàpp ne dañoo salfaañe li nga xam ne moom moo di àkkam ak yelleefam ndax waru ñoo jël woyam dugal ko ci boobu lépp série sans autant que ñu daal di koy laaj ci li nga xam ne moom moo di xalaatam

écopé trois millions de euh, trois mois de prison avec sursis la ko amandone ak un million de francs CFA euh, buñu batay bi euh, ki nga ko ci ko sponsor Nestlé Sénégal ak Pack Foot ñom nak ñoo en li nga xamné hors de cause mu audience pour nak koy le premier juillet bi ñu dëkmal ngir la di ak i ndax euh, bu ñu moytuwulee euh, coow loolu dana mujjee rek daal di jur leneen ndax lu bëgg a mat ñaari at euh, ñu ngi koy rek topp ci kanamu yoon ngir bril li ko yoon may mu daal di koy jël ndax dañoo daal di salfaañi ak am ak yelleefam ndax waruñoo jël woyam loo xam ne am na droit d'auteur dugal ko ci ab série boo xam ne mësuñu ci am avalam bu ñu sukkandikoo ci bril moom ak ay avocat am ginnaaw bu ñu doon laaj ana la nekk mbërum géejawaay mi di lag de Guerre dafa mel ni France euh, ba ñëwaat Sénégal ndax ñi ngi ko doon walum ci wàllum coowal xaalis ak passeport ak visa ak yu demee noonu nekk fi woon ñu doon wax sax dafa daw am dawul moom Lac de Guerre nag dafa mel ni dellu si waat na ci ab entretien boo xam ne daal dina koy accordel ñenn ci suñu ay ngir sëgg ak ki nga di mi di Franc Ndiago ngir rek euh, promoteur yi daal di koy euh, tëgg ci nu mu mu ni Franc def ba daan Bombardier du noonu la koy def wala franc daan boobu mat jëy warul mën a tax rek mu jàpp ne mbër la mu war a mën a dëkku mbër yu mag yi ba tax na mu ne pare na ngir fas yéene sëgg bëri ak ki nga xam ne moom moo di franc ci noonu sax la daal di lancé ab message ki nga xam ne moom moo di promoteur bi di Baye Ndiaye ci ba noppee rek moom Lac de Guiers pare na ngir ñu daal di koy tëggal kombaam digganteem ak kile di Franc ñu daal di jeexale xibaar yi ak le xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké daal ci lu ñeel journée eh, bi nga xam ne moom moo di journée ajuma bi ñu dëgmal eh, ci eh, li nga xam ne moom moo di ay kaddu yoo xam ne rek daal dina koy recommander au Baye Fall ngir ñu organiser ab journée de zikrullah ci ajuma bi ñu dëgmal li ko dalee dix heures ci suba jàpp vingt heures ca Touba Mbacké ngir rek sakku ay ñaan waaye itam jàmm dal di wàcc ci Sénégal ca Touba ak fépp foo xam te ne ab jullit mu nga ne événement boobu nag dañu ko daal booleeg ay séance récital xasida euh, ci guddi gi mu mel ni itam ki nga xam ne moom moo di Serigne Moustapha Fall Mbar euh, dal di nekk bras droit bu xalif général des Baye Fall dal di nay partagé bi le message euh, dal di jóge ci Serigne Mountakha basiru Mbacké ngir képp koo xam ne rek murit nga Baye Fall nga nga mën cee jot ngir ñu mën a jëfee ndigal ci àjjuma bi ñu dëkmal cee Touba Mbacké mbokki xarit yi ñu doon teewlu ci Leeral SN TV jaajëfal nañ leen bu baax a baax leen wax ngeen wéy di ànd ak ñun ci suñu ay programme bu leen fàtte abonné activer seeni cloche de notification ngir ñuy mën di ànd ak yéen saa su nekk jërë ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm